Conseil sénégalais des chargeurs Gosek moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky Sall xanaa yaramam dafa tàng yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy na yaramam bu tàngul timit jege na ko ndax démb ginnaaw conseil des ministres bi le président Macky tas tasar gouvernement bu Sénégal Macky Sall ko ndànk dàq ñi nga xam ne ñooy secrétaire d'État yi dàq Aminata Touré mi jiite woon conseil économique social environnemental nekkoon secrétaire général gouvernement yéen gii di la témoin mu xëy di ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di Macky Sall neexul ba neexul waaye nag ni ki démb yëngal na république bi yéen gii di libération nee na Macky Sall kay jaaseem la yor ki démb di caw di fejerte ba pare jaxase lépp yéen a kaay gi nee na lu toll si juróom benn ci ay ministre yoo xam ne du ñu duggaat ci bi tribune yéen a kaay yi nee na Macky Sall ab bulle de guerre maanaam moom la yoroon démb di déqi rek di dem ba tey ci biir journal bi ñu xëy jànge fa ne Macky Sall su ngeen gisee mu bëgg a def ab remaniement ministériel bëri na ci ay ministre yoo xam ne dem nañu ba Macky Sall wóolootu leen maanaam dina yëkkate ay daan lal ko seen ndodd génne leen gouvernement bi dina bëri ay surprise loola ñenn ñi sax ñoo ngi wax ab gouvernement élargi maanaam gouvernement boo xam ne dafa yaatu ba maara day taal yi xam ne société civile bi ñoo nga ca biir opposition bi ñoom tim ñoo nga sa biir waaye nag yéen a kaay gi xëy na samp ab laaj nee na Macky Sall bu defee ab gouvernement boo xam ne daf koy tàllal est-ce que réew mi ak ñi nga xam ne ñooy waa taxawu Sénégal ñoom Khalifa Sall danañu nangoo dugg ci gouvernement bi journal bi xëy samp ab laaj Ousmane Sonko moom ay mbiram bu ko ci kenn tudd moom ci gouvernement élargi ndax Ousmane Sonko fukki xelam sa xalaatu ko yéen a kaay gi di enquête mu xëy di ñu xamal nañu Macky Sall bu ngeen gisee mu tas gouvernement bi bëgg indi beneen gouvernement li ko waral yomb naa xam ndax coronavirus bi moo indi ay jafe-jafe ci àdduna bi indi ay jafe-jafe ci économie réewum Sénégal ak immigration clandestine bii nga xam ne bëri na ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi ciy faatu loolee moo tax Macky Sall bëgg a wàcc yoon wi mu awoon xool weneen yoon yéen a kaay gi di direct info ko wax ak ku sonn ndax mbedd mi boo ko xoolee bëri na ay marchand ambulant bëri na ay ndaw yoo xam ne amuñu liggéey te nag projet bii nga xam ne mooy délégation de l'entrepreneuriat rapide mooy projet boo xam ne ay milliards yi milliards lañ si dugal ngir nag projet boobee jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi waaye amul ñenn ñoo xam ne gis nañu si seen bopp journal bii di popp Populi nee na njiitu réew mi di Macky Sall yëngalaan na carte gi yéen kaay gi di exclusif nee na muy Aminata Touré di Amadou Ba di Makhtar Cissé di Serigne Mbaye Thiam di Abdou Karim Fofana di Aliou Ndoye di Malick Sall ñii ñëpp soo muy tuulee duñu duggaat gouvernement bi rawatina maître Malick Sall mi nga xamante ni ma ngi am ay ñol-ñol ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum justice Aliou Ndoye moom tim ma ngi am ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum napp gi Serigne Mbaye Thiam moom tim ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum inondation yi ak digganteem ak Aminata Mbengue Ndiaye Makhtar ma Macky Sall amutut ci moom benn kóolute ak ki nga xam ne mooy Amadou Ba yéen a kaay gi nee na xel tey na ci gi nga xam ne dàq nañ ko Aminata Touré ak Mohamed Dionne ak Maxime Jean Simon Ndiaye yéen a kaay ki nee na est-ce libération yéen a kaay moom nee na xalaatu ko Dakar Times nee na nag Aminata Touré Macky Sall daf ko libéré ngir nag mu dem préparé ci maanaam ab candidature am ndax Aminata Touré musta làq ne andul benn yoon ci ñetteelu mandat te wax na waa APR ba tàyyi na maanaam moom dafa am ay ambition présidentielle journal bi nee na Aminata Touré logement de fonction yi nga xam ne moom la ñu ko joxoon jóge na fa bu yàgg a yàgg réew mi quotidien xëy di ñu xamal na ñu bu bi nga xam ne Macky Sall tas ko andi nañu ay yeesal yu bi maanaam ci préfet yi gouverneurs kaay gi de la Tribune ñu fekk fa Macoumba Diouf maire bu Laat Mbengue nee ci Sénégal dafa am ñoo xam ne dañoo jël politique def ko métier te politique du métier réew mi ko di jëlee nee na Souleymane Téliko nañu koy déglu niki démb ca Cour suprême waaye nag bu mu génnee moom ak i avocat ma ba leen taskado xabaar yi laajee na leen lan ngeen wax dañoo wax ne amul lenn loo xam ne moom la wax ñu ne leen kañ lañ koy wooluwaat ñu ne amuñu si tontu gi di réew mi quotidien nee na Cellou Dalein Diallo moom nag jamono ji jàpp na na ba léegi moo gañe li nga xam ne mooy élection présidentielle sa Guinée Conakry ñu ne déeta waaye Cellou Dalein Diallo ma ngi waaj ab gouvernement yéen kaa kaay gi nee na police ak gendarmerie ñi nga xam ne ñoo waroon kër Cellou Dalein Diallo daal ni ñu fay jugee journal bi ñu xëy fekk fa du mbay mi nga xam ne mooy directeur général bu marché bu poisson sa Pikine daat nay wax ne lu ëpp benn milliard dina dugg weer wu jot lu toll si juróom-ñetti junni ci ay nit ñoo ngi ci marché bi daat nay wax ne marché poisson bu Pikine mooy marché bi gën a rëy ci sous bi wax na jafe-jafe yi nga xam ne ñoom amee nañ ko perte yi ci coronavirus bi wax na jéego yi nga xam ne def na ko ci marché bi ak changement yi nga xam ne andi na ko si moom du mbay mi nga xam ne mooy directeur général marché au poisson bu Pikine ci réew mi quotidien la xëy siq ak ñoom waxtaan stade yéen a kaay xëy ci ligue des champions ak club yi nga xam ne niki démb daat nañuy am ndam ku ci mel ni FC Barcelone mi dir Juventus de Turin ñaari bal ci dara Manchester United ak Chelsea ak Paris Saint-Germain yéen a kaay làmb nee na Matar ba jamono ji fësal na projet yu yi nga xam ne am na ko si bu bees bi